yee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sant di leen ziar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo di leen béggee bu wér yee ñi ñëwaat encore di waxtaan <clears throat> comme niñ koy faral di defee rek di waxtaan ci dëgg di ko teg ci dëgg donc euh, yéen a gisal seen bopp du luñ leen di wax ala di ko situation yi Sénégal di situation sombre la histoire bu doy waar la buñ nekk di traversé nii bu ans après ñi ngi la même chose parce que moment bii à deux mois des élections présidentielles 12 bandi bi ans derrière ay waxu conseil constitutionnel lañ doon les sept singes yi nga validé la candidature de euh, Abdoulaye Wade Tal de bi Lak dëkk bi les sept singes ont été choisis par le président Abdoulaye Wade tey ñu ngi waxaat les sept singes qui ont été choisis par Macky Sall mu l'histoire se répète ci population vous xam ça saa su nekk rek buñu ñu yaakaar amee yaakaar ni mbiri dina changer rek mbiri di gëna a empiré wu di gëna a ci seen kaw di gëna bon ci seen kaw à un moment donné même tu te demandes qu'est-ce lan lañu def ñun ba douze ans après ñuy dundat la même situation lan lañu def ba dundat la même situation il s'est trouvé que euh, Macky Sall ak Ousmane Sonko fu ñu dafa sori te lu bari bari bari xaj na ci seen diggante coow li bari na fi ay xeex am na fi lu ne am na fi mais bu ñu fàtte objectif yi objectif yi mooy Macky Sall dafa jóg ne Ousmane Sonko du dem ci élection yi ne da koy tëj ñaar yooyu moo ne woon objectifu Macky Sall Ousmane Sonko objectif am moo ne moom du dee moo ko gënal Macky Sall di ko tëj ci kaso yi d moo ko gënal ay élection munu am Sénégal te moom bokk ci donc ku ci nekk da amoon objectif léegi dem nañ dema dema dema dema dem ba tey benn objectifu Macky Sall sotti na mooy noon bi mooy fexe na ba tëj Ousmane Sonko par A ou par B mi ngi ci kaso bi deuxième objectif wu Macky mooy mu xañ Ousmane Sonko élection yi muy ñaari objectif kese la Macky Sall amoon mooy bu ko defee mooy matal na ñaari objectif am yi moom mooy dem ci euh, élection yi boobu sottiwul mu ne bu ma demul dinaa tëj Ousmane Sonko te du dem ci élection yi donc ñi nekk di subir nag situation yooyu nga xam ni buñ ko tàmbalee ba léegi ay nit dee nañ ci rey nañ ci ay nit ay nit gañu nañ ci ay nit dugg nañ ci kasso yi donc bu tay buñu peuple bi sétané ba Macky Sall réaliser ay élection def élection organiser ko sans Ousmane Sonko moy ñaari bëgg-bëggam yoy amone ci jamm ay élection ci jamm moy woné ni Macky Sall a réussi son coup ça day ni Ousmane Sonko n'a pas réussi son coup parce que Ousmane avait dit que mom Macky Sall mënulu ko dara te du ko tëj ci kaso yi tëj na ko Ousmane Sonko avait dit ay élection mënu fi am sans moom kàddoom la moom kàddoom la ay élection munu fi am sans moom bu fi naree am dëkk bi dana nekk tooy buy dëkk bi dana rajoxoo donc bu fekkee ni sénégalais diggante boobu am na ñu leen nax ay forces occultes yu leen nax gëm loo leen ni bu leen xeex bu leen def dara ba Macky Sall mun a organiser ay élection sans Ousmane Sonko ça montre que Macky Sall a réussi son deuxième coup mooy maanaam pexem yooyu mu tàmbale woon réussiraat na deuxième bi mooy tëj na Ousmane Sonko organiser na ay élection sans Ousmane Sonko léegi nag loolu danger dafa am danger bu fa am moom mooy Macky Sall dafa jàpp ni seul Sonko moo ko mun a xañ moom élément kandidaam bañ a jël nguur gi loolu moo tax mu jël objectif am yëpp wékku ko ci Ousmane ko kese ne kii bu ma ko daanelee li ci des li kii moo gën a ngand ci mbir yi kii mooy laar qui cache la fore bu ma ko daanelee li amul lu ma ciy jaaxalati dara dootuma jaaxalati donc loolu moo tax mu jël intention am teg ci bakkanam ne day éliminer Ousmane Sonko par A ou par B bu ci dese nag leneen li mu fas yéene jàkkaarloog ñeneen ñi nga xamni comme nous ko defee en 2019 mille dix neuf sàcc élection yi taf taf lijjanti affaire yi ba taxaw ne mo gagné élection premier tour. té y avait Ousmane Sonko ci élection yoy y avait Idrissa Seck mu sàcc né premier tour té ñëpp xam nañ ne daf ko sàcc ay élection yoo xamni ne résultat ay génnaguñ sax ñu taxaw ci télé. donc sàcc yoy ñu ngi waat fi ba légui bougé wuñ ben yoon ces voleurs là ba légui ñi ngi fi. confiance bu ñu am ne bu ñu éliminer Ousmane Sonko lu ci des dañ koy gagné confiance boobu lañ nekk ñoom gëm ko gëm a gëm a gëm ba tam dañoo jàpp ne ñoom dañuy gagné élection yi fi génnee Ousmane Sonko. dañ ci ànd ak confiance nag barke alxuraan dañoo ànd ak ils sont très confiants bu ñu éliminer Ousmane Sonko dañuy gagné élection yi ñoom. xaw ma fan lañ ko teg nag mais dañu am confiance bu nganta nganta nganta nganta nganta nganta ba japp ni ñom buñ ñu Ousmane Sonko buñ ñu Ousmane Sonko dañuy dañuy jël élection dañ koy gagné donc maintenant li fi nek mom moy face à l'actualité actualité lan la sénégalais stratégiquement wara mëna def ba contre Macky Sall ci programme bi ci complot bobu moy bugg éliminer Ousmane Sonko ci jaayum doolé parce que justice mom waxatuñ ko. bu fekkoon justice la wax xam nga nañ ko waxte dé bi nga xamni cour suprême atena ñu jël ko yóbbu ko Ziguinchor Ziguinchor atena Ousmane Sonko amna dëkk bu fekkoon bobu jox nañ leen parrainage ngeen xamni bi ni sax dañ leen jox parrainage man musuma xaar ni dinañ leen jox parrainage de musul nek seen objectif te Ousmane Sonko duñ ko jox parrainage ba mu jeex tak duñ ko jox parrainage ba élection di am

bi nga xam ne saaba si fay def ne delloo leen ko ci liste électorale yi te ngeen jox ko ay droit am waa ji bafuwee ko mais kon kay du tey la waa yi di def loolu du tey la koy def kon kay ñun ñëpp dañoo toog rek xam xam ni waaj ak ñuy jaay doole waaj ak ñuy jaay bandi jógaguñu pour fayantoo wala pour xeex ko mais ku ci nekk na nga assumé ni bokk nga ci li xew parce que kenn di rien consent yow mi toog di seetaan situation bu demee nii jaralu la génn jaralu la wax jaralu la dox nga toog ci internet bi wala réseaux sociaux yi wax kese loolu yow tu as assumé kë li ñuy teg Ousmane Sonko ko nga cee ànd da cee ànd parce que yàlla daf ne injustice da ngay jóg nga xeex ko boo ko mënul xeex nga jooytu ko nga wax ko boo ko mënul jooytu nga jooy ko ci sa xol donc li ñuy teg Ousmane ko bu fekkee ni nit yi jóguñu yëlbët taxaw wane ni lii ñuy teg Ousmane Sonko jaarul yoon du dëgg du yoon ñu toog di ko seetaan ba pare toog toujours ci seen rêve yooyu naan ay day dem day dem day dem te teguñu ko fenn loolu sincèrement moom mooy da ngaa accepter forfaiture bu ñu def Ousmane Sonko da nga ko accepter ci nii walla ci nee mais da ko accepter parce que defoo ci benn jéego jógoo ci defoo ci benn jéego fi nga toog nga toog di gis jaxaran yógoo ci xeexoo ko jë jëmoo ci doxoo jëm ci donc ki nga xam ne nag moo xañu boobu ba léegi bu saaba si fay waxee ba léegi amul benn droit wu Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko jot benn droit am saaba si fay bu mu waxee ñu war ko delloo delloowuñ ko ci list yi saaba si fay bu mu waxee joxuñu ko ay parrainage kon Ousmane Thioune Ousmane Thion Ousmane Racine Thion bu mu waxee tam duñ ko defal dara parce que gars yi ci doole la ñuy dox ci jaayum bandi la ñuy dox ci sañ-sañ lañuy dox te loolu sénégalais xam nañ ko léegi rek ñaar moo fi nekk waa ji jaay doole ak keneen kuy commenté Macky Sall di jaay Ousmane Sonko doole ak sañ-sañ piétiner justice bi am ñoo xam ni ñoom dañoo yor euh, code pénal bi rek di mi ngi mel ni ab bandi bu dugg sa kër jàpp sa njaboot di dóor jàpp sa baay di dóor ngay réciter nga tourner ubbi xuraan bi di réciter di réciter xuraan bi bandi baa dugg ci biir kër bi jàpp sa baay di dóor di diri ngay réciter xuraan bi naan ay yàlla nee na boo duggee ci kër nga diri ko nga kii ko yàlla nee na mais sa kooku yow yaa ko gis yàlla nee na taxul waa ji bàyyi sa baay yàlla nee na taxul waa ji bàyyi di diri sa baay yàlla nee na taxul waa ji jóge fa ba génn sa waay yàlla nee na nga jóg yàlla nee na nga jóg nga dakkal lii ngay gis nii nga gis ko yow jaxaran jàmmaarloog moom ñuy diri sa baay di yóbbu di dóor diri nga gis ko donc dangay teg kaamil bi nële nga bàyyi yàlla nee na ki nga jóg affronté waa ji mu bàyyi sa baay loolu dëgg ji loolu mooy dëgg ji loolu mooy wa luy deug jamono ji bayil gars yi ñu def élection sans Ousmane Sonko c'est baliser le terrain à Macky Sall c'est être complice képp ko sétane Si nous éliminer Macky Ousmane Sonko mu baña dem ci élection yi tu es complice complice nga ci li Macky Sall def nga yëg nga ko ndax ba muy continuer di def progression yaa ngi koy gis jàmmaarloog moom nangoo cee wax nangoo cee yëy nangoo cee yàbbi chaque jour que jël fait ñun dañoo nekk ci émotion bu doy waar moo tax musuma ànd ci émotion boobu damay xool sax ma ne situation bu sénégalais yi sénégalais yu quand je les vois rigoler quand je les vois rire je me dis que soit sénégalais comprennent nous ñun nous leen di wax ci ñu parce que tamit sou dafa wax ni da ennemi xam faiblesse donc kuy xeex ak Macky Sall dañ la war a xamal kan nga amal affaire man quand je vous vois rigoler comme sa di saboter nii non damay toog ma ne sama équipe ñi may xamuñu ku ñuy xeexal parce que kuy xeex ak Macky waroo sax nelaw bu dee xam nga ko chaque jour boo leen joué ci ab mbir seen yaakaar tas Yo, Ayib dafé, Ayib dafé dawna Ayib affaire ba affaire di quoi ana mais shit shit man gars yi ma nous ça. comprendre c'est des sénégalais quand même mais comprends-nous les enjeux xamuñu dara ci mbir fo lañ ko def dañu jël affaire bi Macky di ak ñom di jël lepp lu mu am di ci xëpp ci di muy avancer rek.

fépp la ñuy reetaan fépp lépp lañ def foo ay Daffé tey moo bugg a dugg fi nga xam ni foofu la duggoon mu ko tey kon ñii ay bandi la ñoo xam ni yéen fi ngeen nekk ak ñoom fu ñu ne bokkuñu dañ leen di saxal ngeen di foo ñoom ñiy guerre après à la dernière minute ngeen di comprendre ni ndakate yéen a newoon di nalaw ñoom nalawuñu ñoom nalawuñu et ça c'est triste c'est-à-dire enfantillage bi nekk ci ñun ak affaire bi ni ñu ko jëlee caaxaan affaire bi tollul foofu ga affaire bi vraie guerre la guerre bu doy waar la bu ñuy dund suñu leader bu ñu yaakaar topp ko gëm ko jafandu ci def lu ne la tey lañ bëgg a comme nu ñu éliminer woon xalifa sàll comme nu ñu éliminer woon Karim Wade Ousmane Sonko taxaw wax ba sonn ne leen ne Macky Sall billaahi boo ma bëggee éliminer di nga jaar ci kaw néew dinga nga jaar ci kaw néew man duma xalifa Sall man duma Karim Wade mais mais Abdoulaye Macky Sall mi ngi koy wan ni hey yow Karim Wade nga yow Khalifa Sall nga ni ma def Karim Wade ak Khalifa Sall 2019 noonu laa lay def élection laay organiser mu fekk la ci biir kaso bi te mais noonu la def Khalifa Sall noonu def Karim Wade bu ko réussir Ousmane Sonko c'est il l'a fait te Ousmane ko loolu la Moussa bañ ci àdduna nee na ko nu nga toroxalee xalifa Sall toroxalee ko Karim Wade doo ma ko toroxale mais boo leen bu Ousmane Sonko demee bay défier Macky Sall C'est parce qu'il a confiance au peuple sénégalais ku ko fekkoon ci kaso ba fëggu ko ne ko lii ko gëm parce que il avait très confiance au peuple sénégalais que li ñu def Khalifa Sall sénégalais duñ ko seetaan ñu def ko ko il avait défié Macky Sall xamal ko ni li nga def Karim Wade li nga def Khalifa Sall tëj leen def ay élections sans ñoom ñun duñ ko seetaan mais c'est ce qui est en train de se de se passer comme ça liñu def Khalifa Sall lañ nek di def Karim Macky Sall def Khalifa Sall lañ def euh, ki nga xamni moy Karim Wade organiser les élections sans ñom ba pare mu fekk liñ ci kaso bi mais Macky Sall Sonko mi ngi nekk di dund lolu jamono ji te dans quelques mois dans deux mois exactement il y aura des élections te bu le ni la ñuy il y aura pas Ousmane Sonko je vous le dis prenez note man duma len fenn prenez note prenez bien note dama ne ni ngeen di doxalee nii taxawaay bi ngeen taxawee toogaay bi ngeen toog nguuru uufu di foo dama ne boo quatre-vingt-dix-neuf pour cent Ousmane Sonko dem ci élection yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent Ousmane Sonko n'a pas de chance dem ci élection yi bu fekkee ni ngeen toogee nii noonu ngeen toogee te bés bu ñu demee ci élection yi gars yi ñu ngi waajal loo xam ni barke alxuraan dañuy tourner gis gars yi taxaw ci télé bi ne ñoom gagné nañ ko dañuy tule rek gis leen ñu taxaw ci tale bi ne ñoom gañe nañ ko génneel ñu ay résultats ak ay chiffres yu teguwul fenn les dégâts seront très énormes bés bu ñu seetaanee ñu fooyee Ousmane Sonko bés bu ñu tegee gis nga ay affaire u Macky Sall gëmul justice ay décision de justice Khalifa Sall Karim Wade fukki dërëm jëluñu ko ci mom ba suñu jonne yalla tay ni yobbu nañ ko ba CDAO CDAO ne Karim Wade mo gagné Macky Sall musul faalé loolu musul faalé loolu donc je peux pas comprendre des sénégalais xawma xawma Australie lañ judo xawma euh, euh, Cameroun lañ juddoo j'ai pas compris ñu tok di wax ay waxu décision de justice décision de mais ils sont malades ki ngeen wax ni Macky Sall moo premier sénégalais bu voter sans carte électeur Ça va def na ça sa yaay def na ban président moo ko def c'est que Sénégal est-ce que amul amul ñoo xam ni nekkuñu woon fii wala seen papa dañu leen juree outside xamuñu dans Sénégal ñi ngi intéressé wu ci politique. Macky Sall est la première personne au monde bu dugg ci bureau voter te amul carte électeur te une carte d'identité man de sama baay mënu sa baay mënu ko ma Abdoulaye Wade mosu ko def Abdou Diouf Macky Sall moo ko def mais cette personne là après temps d'années gars yi di ko waxu justice quoi ay justice ay justice il parle de quelle justice Macky Sall s'en fout de la justice s'en fout éperdument de la justice te gis ngeen ko du tey xaw ma tey ngeen nan la nit mën a ñëwee ba vingt et unième di comprendre que Macky Sall naka te xamul sax faalewul justice Macky Sall est dans son monde Macky Sall est dans son monde buur ben demi-dieu buy wax lu ko neex gaay di def sëqët di mer gaay yi di wàcc sen bop yi muy wax lu ko neex di len saga ay nday. Ñepp na tek. c'est quelqu'un ko xam dafa conquérir le Sénégal Japp ni moko mom ay mama mako fi bayil. Donc, quand ça parle de Macky Sall et ça parle de euh, décision de justice, je comprends par là que ces Sénégalais-là n'ont absolument rien compris. Absolument rien compris. Ousmane Sonko bu une justice la kon dinañ ko paqueté ba indi ko ba indi ko Ousmane Sonko bu justice la kon tey ko <laughs> compte de bi de dox comment des Sénégalais peuvent parler en ce moment là de justice ils ont tout oublié

corruption de jeunesse ñu jàpp ko ñu ne compte max bi dox na bépp gis ngeen dem jëli ba ay australien ñu ñëw ne xoolal affaire bi compte max bi c'est normal nanga est-ce que compte max am mais comment un sénégalais peut rester là à parler de justice <laughs> ils n'ont rien compris Hein? gars yi laa laaj ban la nan la sénégalais mën a taxawee fii amul cër ci sénégalais di wax waxu justice ay décision de justice jëli nañ ba jëli australien marocain américain belge ñëpp ne Ousmane Sonko ti max bi war na jaar yoon def na mais le... c'est même perdre du temps de parler de justice au Sénégal c'est des jeux c'est des jeux avec Macky Sall justice amul administration amul ab yalla mo fa nek ak ay yonentam ak ay dungurum Macky Sall loolu lay dund faalewul justice te nee naa leen seen këyit yooyu di ngeen ko yor cinquante ans di daw justice peuple sénégalais bi bàyyi seen xeex topp justice bi duñ ci am ndam xanaa loolu bu ma leen ko waxee boobu ba léegi kay di kañ geen di ñëw ne ma am ngeen ndam kañ ngeen ma dama ne fii ak Macky Sall lañ xam lépp suspensif décision non suspensif buñ koy wax ba amul décision bu Macky Sall justice jël Benen ñu def bu justice wax depuis que Macky est Macky Sall kañ justice Macky Sall décidé ñu jël bu justice la yi yi donc dama bëgg sénégalais face à la réalité te rêve te xam ni ki ñu amal affaire s'en fout éperdument de la justice bu fekkoon da jaar yoon justice kon tey jii laa la wax avant Ousmane Ousmane Sonko du yegg si fii Ousmane ko dañ ko biij baaje biij baaje biij baaje biij baaje ba dugal ko ci kaso bi dara jaaru ci yoon amul justice benn Mamour Diallo taxawul ba léegi te moom mooy le principal instigateur ba léegi taxawul te dégg nañ audio dégg nañ lépp ñi wax waxu Mamour Diallo ana Mamour Diallo kon dëkk boobu nga xam ne dañoo paqueté Ousmane Sonko depuis deux ans ba suñ jonn yàlla tey kay nit bu dee gor la waru wax waxu justice donc li fi am mooy il faut que sénégalais yi très sincèrement jóg te balaa ba ba mu jotee jóg te ba mu jotee gis nga ni ñu gars yi def début ba bu ñu seetaanee noonu lañ ñuy def ba def fay élection sans Ousmane Sonko dëgg wëndeel ña fa ne génn dóor ay résultats préfabriqués jaar ci média bi accéléré ko déglu histoire bi de accéléré ko jaay ñi bandi conseil constitutionnel génn juge ba génn chaque jour ñun loolu la ñuy dund man daal man xaw ma sénégalais gars yi dañuy nalaw dafa am ñu ma àndal nii dañuy doog a judd yéen fàtte ngeen juge bi nga xamné bu muy récité fi sen kanam yeen sax da ngeen don reetaan résultat présidentiel 2019 wala am na ñu fi judd tay nan euh, Macky Sall am na tomb ñett bu teg bu tektal juróom-ñaar ay résultats yu ñu ko jox mu koy lire noonu la préparer préparé ay résultats bu Ousmane Sonko demut parce que bu Ousmane Sonko démé ay écart yu doy war amuñu fuñu jaar mais bu Ousmane Sonko demut. dama ne fofu dañoo bëgg wa waa dañoo fas yéene tëgg wëndeel yi créer seen résultat jox ko waaji muy lire di euh, teg teg ñent bu tombal juróom-ñett yeen ñep yeen ko gisandoo yeen ñep ko gis dund ngeen ko yeen ñep gis ngeen loolu mi ngi doga am ci histoire créer seen i PV teg ba à deux mois des élections mais à part ñom kan mo yore fi fichier électoral bi. <laughs> man gars yi dañuy wax waxu ay justice ak yooyu gars yi dañ leen di nax rek à deux mois des élections wax leen ma ban opposant moo yor fichier électoral bi jàkkaarloog moom joxu ko kenn joxu ko kenn a deux mois des élections mi ngi téye fichier électoral bi moom ak ay élément am ñuy teg seen i stratégie di teg lépp ñu ngi koy teg population bi ñi ngi dàqante ci marathon judiciaire bi mais ñom ñi ngi yar seen fichier électoral di doxal lu mu leen nexé di tek ay pion indi ay nit ñu tok di ba déglu déglu lu ma la wax ba boo demee kër Amadou Ba démb ba 5 h du matin ñi ngi réunion ba 5 h du matin ñi ngi ci seen réunion yi. génn nañ Ousmane Sonko ci élection yi bu yagg man comprendre ma sax ba génn nañ élection élection yi génn nañ ci Ousmane Sonko ñom ñi ngi wax leneen ñi ngi ci yeneen stratégie di tek merci beaucoup. le gouvernement est dans la dilatoire C'est ko le même terme que j'ai utilisé j'ai entendu même Dame di leen ko wax naan leen loolu loo leen man kontaanuma loo leen parce que est ce que xam ngeen ni instant yi xam nga jour moo ci des tey le 20, 6 jours moo ci des Badio Camara Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly génn ñi am nañu booy yi doog a juddu xamuñu ñooñu paa yooyu ñoo sa ñoo barke alcorane ñoo ñu Sall mo leen fa tek justice tagul leen fa dara tagul ay paa yu la woon ay magistrat lañ woon yu magget yu maxe yu dem tok ba retraité mu jëlat leen indi leen tek leen demane la conseil constitutionnel musul def lu neexul président conseil constitutionnel mo taaloon réew mi en 2012 conseil constitutionnel mortal a en 2019. conseil constitutionnel mortal réuni en 2024. vous allez affaire à des retraités des vieux retraités yu parlez woon Macky Sall indi leen ce leen fa kenn du ci booy Badio Camara la Diawara Youssoufa Diaw hein, Cheikh euh, Ahmed Tidjan Koulibaly ay vieux yu toog toog retraité mu jëlaat leen fay leen jox leen auto jox leen lépp teg conseil constitutionnel du mus wax luy contraire ak lu président bi musul am Sénégal du Abdou Diouf jamono yangar Abdou Diouf jamono Abdou Diouf conseil constitutionnel lu mus wax dafa neex Abdou Diouf Abdoulaye Wade bu mu ñëwee teg conseil constitutionnel boppam ku ñëw da ngay teg sa conseil constitutionnel bopp Abdou Diouf

dañ leen fay pour loolu ku xool xam ni avocat Ousmane Sonko yu jommi nañ jaxle ne te peuple bi soutenirul lañ leen ci dara man dama yërëm sax ay ay dafe ay dafe ak euh, maître Ciré Clédor ndeysaan dama leen yërëmum ñu ngi ci naaj bu tàng bi di daw di daw buñ demee cour suprême gars yi tëjal leen buñ demee conséquence ñu tëjël leen ñu ñu dem DGE ñu tëj buntu yi bu wax leen ñu dem daaf ñu tëj buntu yi sénégalais yi taxaw di leen xool ay magum jëmm yu am njabar ami doom nekk loolu du seen liggéey ak seen huissier fu ñu dem ñu tëjël leen buntu yi bu max sénégalais toog di leen xool ba pare nag am ay reer naan non day dem Ousmane Sonko day dem bu ñoom gis nga dama ne bu ko ay daf xamee woon ni nga xamee yow xëy na ngaa xam lu mu xamut bu ay daf xamoon yi nga xam ba ni Ousmane Sonko day dem force ay daf day toog këram bu fekkoon ni moom Ciré Clédor en tant que avocat Ousmane Sonko xamoon li nga xam yow comme yow da ngaa kenn xamut yow da ngaa toog xam lu kenn xamut gis lu kenn gisul da ngay taxaw yow gis nga ni Ousmane Sonko day dem fu ko mais kon kay dem leen wax ko ay daf mu bàyyi dem wër wër wër taatu mu nekkee. ak bu max guñ koy bu max ngeen noppal ko ngeen dem na ayib daafee ñun xam nañ lu ngeen xamul Ousmane Sonko day dem ngeen dem ci avocat bi Ousmane Sonko bi ne ko yéen gi ngeen sonn pour lan la Ousmane Sonko day dem mu ne la lu tax ngeen ne ñoo xam nañ lu kenn xamut day dem. léegi nag man dama leen di wax loo xam ni da koy dangeen koy gis Ousmane Sonko ay avocat ñu ngi rayante nekk ci mbedd yi fu ñu dem ñu tëjal leen bunt yi. mënuñu déposer fan fenn mënuñu ko dem nañ DGE tey ñu tëjal leen bunt yi ñu dem DAF démb ñu tëjal leen bunt yi ñu dem CD CDC ñu tëjal leen bunt yi ñu ngi yor seen këyit amuñu sax fu ñu ko teg décision justice lañ yor huissier bi constat constat yëpp mais mais kan mooy constaté huissier bu jox bu yoree constat bu ko constaté ku mu jox ay juge la koy jox de juge yi ne dañuy dàqante ngeen foog ni loolu conseil constitutionnel day toog di xaar gars yi dama ne gars yi dañuy dajale seen këyit yëpp jox ko conseil constitutionnel loolu leen baax rek mu dajale affaire yi ñu ne ko waaw décision de justice bi nii la demee lii ñu mu ne leen waaw mais lii pareegul c'est c'est un dossier pendant donc ñun mënuñu ko traité dañ koy jël delloo ko cour suprême ne cour suprême yow attel lii lii yow nga indi ko jox ko xam ñoom jël jël nañ ko yóbbu ko ba ne dañ koy yóbbu conseil constitutionnel dañ ko fay déposé gars yi le 26 bii 6 jours moo ci des ñu fàtt lépp mu jeex ñu indi dossier jox leen ko ñu ne leen non dossier bi pareegul dafa pendant mi ngi ci justice bi dem delloo ko cour ne ko dem yóbbu ko conseil constitutionnel dem leen nga àtte ko foofu ñoom ñu continuer focus ci lu ñu nekk. et noonu lañ ko décidé déglu leen bu baax man samay wax mi ngi fi faale effacé wu ma sama live bi Si nous commençons à faire des choses, nous ne musa wax mi ngi fi dam parce que l'histoire me donnera raison si et seulement si le Sénégalais reste inerte face à cette situation d'injustice aggravante ni l'aide lay c'est le programme ni lay Si le Sénégalais yu pas le programme non noonu lay donc il faut que Sénégalais

Macky Sall mi ngi toog di bëgg a éliminer Ousmane Sonko comme nu mu def ay moromam nu mu def ay moromam non <laughs> affaire yi dafa dëppu barke alxuraan Ousmane Sonko kese musul nangu li ko Macky Sall di def nii musu ko nangu musu ko accepter c'est très facile mais da ko bëgg a jëlee éliminer ko facilement comme sax justice ne A mu ne B A mu ne B gars yi duñu foowee fu nekk nii. ki nga xam ne mooy Ousmane Racine Thion xam nga def na nañ delloo ma euh, euh, Ousmane Sonko ay droit am ok delloowuñ ko ay droit am léegi ñu ne ñoom dañuy dañuy dugal ñoom tamit pour casser décision juge bi dugalaguñ de le 26 la ñuy dugal le vingt 26 bu ñu dem dugal da nga leen di gis ñoom ñëpp ñu dem dugali mooy avocat gouvernement bi. léegi xam nga loolu bu ñu ko xasee ba dugal rek si suprême après day toog jël date nee naa leen janvier la ko yóbbu moment boobu noonu yow boo jëlee dossier di ko yóbbu conseil constitutionnel danaa la mais dossier bi dafa pendant à la justice dossier bu pendant la mi ngi si biir justice bi ñoom mënuñu ko mënuñu ko traité parce que ñooñu ñoom dugal nañ dugal nañ pour ne nanguwuñ atte atte juge donc boo boo ko yóbbee cour si conseil constitutionnel lan la ci mën lan la ci mën dañ waxante dëgg lan la ci mën boo demee di jooytu mu ne la mais yow lii mënu ma ko traité mi ngi fële am na cour bu gën a ndaw sama cour bi mi ngi foofu noonu fu nekk nii lii atteguñ ko léegi il faut ngeen xaar cour suprême mu atte ko ba mu jeex tàkk cour suprême la lay wax ne ko dina ko atte ba mu jeex tàkk pour ñoom ñu mun cee wax boobu fekk ñoom départ nañ le 26 la ñuy tëj affaire commencé dugg ne dañuy xool gars yi seen parrainage ñu mat ak ñu matut beneen tëgg wëndeel boobaa sénégalais leen la ñuy tal da ngeen di gis ñuy éliminer ay nit yoo xam ne doo ko sax foogee boobu ngeen di gis nag yet salte ba foofu la gars yi di commencé. gars yi jàppale leen ma ci suspensif c'est pas suspensif man man yooyu moom dégluwuma ko quoi <laughs> suspensif c'est pas suspensif. gars yi dama leen wax ay réalité ñoom ñu may wax ay waxu yéen seen waxi loi yi code yi bu sotti woon kon waxatuñ ko kon heure bi dañ fi nekk di waxtaan c'est-à-dire man de bandaa gars yi yenn ñi dama leen yërëm quoi gars yi leen wax ay réalité ñoom ñi ñoom ñi seen monde ay monde de ay monde de rêve quoi c'est pas c'est pas vrai. si la décision Macky Sall est fi am suspensif ak désuspensif ak représsuspensif ak dara amu fi so décision Macky Sall fi am amul leneen ou décision peuple bi wa yow ay suspensif ak non suspensif bu fekkone fekkoon lu sotti la mais Ousmane Sonko musul jot parrainage del delluwaat ginnaaw Ousmane Sonko musul jot parrainage ñepp di jëli sen parrainage mu ñew ñu ko non. doo jot parrainage mun leen lan la ñu ne ko non yow nekkoo ci liste électorale bi waaye léegi ban décision la na ma kenn wax bu dee gars yi jaay xam-xam léegi lan moo génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi ban kan kan moo ko àtte kan moo ko àtte ba ne Ousmane Sonko génn na ci liste électorale yi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañoo yàq suspensif non suspensif décisif <laughs> dem fori ay mooyu gars yi nekk ci télé di leen fooye rek waa léegi ban décision de justice moo génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi ban décision la ban juge la ban juge ko àtte ban juge ko àtte <laughs> ana suspensif yi maa leen di dama bëgg a lire nag Sénégal yëpp a ngi déglu da ngeen mën a xam suspensif ak des suspensif ak rëpp suspensif ak yooyu ngeen di dégg ci télé yi gars yi ratatat yi te dara Macky Sall def ko ci léegi kaa leen wax ma Ousmane Sonko ñi ko génne ci liste électorale bi ban juge àtte loolu ne nañ ko ci génne. kan la du kenn kenn mënu ko wax mun naa ubbi sama ligne bi cent kenn mënu wax kenn moo génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi kan la ban juge la kanoo ko àtte ban tribunal du kenn Macky Sall la toog ne roccil leen ma tuuru kii Macky la toog ne roccil leen ma tuuru kii ñu rocc tuuru Ousmane Sonko tegee ne le rocc boobu ñu rocc nga xam ni bëgg-bëgg Macky Sall boobu lañ topp nii ba léegi <laughs> buur bu rocci benn juge attewu ko benn juge waxu ko Macky Sall moo toog ak ay ministre am ne roccil leen ma tuuru kii ñu rocci tuur ba sànni na loolu la sénégalais di dàqante fu ne nii kon kay waa ji mi ngi taxaw fu mu taxaw sénégalais yi di taw waaye dugalal tur bi na yóbbul juge bi juge bi doxal kii mais benn juge génnewu ko benn juge génnewu ko makki sàll moo ko génne moo génne Ousmane Sonko turam ci liste électorale yi loolu ba légui mo nek ni ki décider génne turam ngeen li ngeen di jaar yag yag ki décider lay ñëwaat c'est-à-dire di ngeen di wër ba dé ki décider muy juge Macky Sall moy toogaat ku képp ku dugalaat turam ngay fekk mu neex Macky Sall ndax ñi bañ ne waxu Macky Sall ba légui ak luñu mësa wax dara musu dara musuñu koo def ndax kon kay kon war ngeen xamni ni dafa am ku nek ci kaw ku dindi tour bi ñu wër a wër a wër a wër boobu ba léegi quatre mois pour dugal tour turu Ousmane ko kenn mënu ko dugal juge naan dugal leen mun ne dugaluma Sénat ne dugal leen mu ne dugaluma kon kay ngeen xam ni fii ay xeexu nit la du xeexu justice dafa am ñu fiir ay responsabilité nangu ñu affronter la réalité taxaw xeex ñu taxaw di ñu gëm loo mais ki ko dindi suspensif du ko delloo répressif du ko delloo de suspendre du ko delloo loolu lepp dara du ko fi delloo dara du ko delloo ku ko dindi ñu ngi fa tok bo indi won ni yeneen yi sax ñu taxaw wax du ko delloo wax du ko delloo exécutoire ak suspensif ak tour yoy ngeen ñu sonnalee ñun jamono ci dem leen wax ko Macky Sall bi dindi turam ngeen bayyi di torturer mentalement dem leen wax ko Macky Sall bi dindi turam jaay mu lañu genné turu Ousmane Sonko ci liste électorale taxaw sénégalais faire face à cette forfaiture L'homme mo gën wax 6 jours moitié 6 jours 6 jours Ousmane Sonko paré 6 jours moitié ci 6 jours 6 jours moitié Ousmane Sonko paré ci mom Ousmane Sonko paré 6 jours 6 jours moitié. 6 6 6 des six six jours moo Ousmane Sonko pare ci ñu benen année mais mon qui nous prochainement président Ousmane Sonko six jours des ngeen réalité ñu wax fait ko ngeen bëgg ko ngeen bañ ko lenn fi des ko ci Ousmane Sonko day day nangu décision day nangu sen décision sans compter le 25 décembre c'est férié le 26 gars yi venu boucler affaire yi six jours moi ci jours alors ba vous avez des rêves, Il taxaw di wax di n'importe quoi ay suspensif ak ay c'est que gars yi xeex bi peuple bi moo koy libéral bopam. Le peuple peuple bi libère libéré bopam wallahi billahi L'Ousmane Sonko wax loolu laa wax li l'Ousmane wax l'Ousmane Sonko wax dama ne A Ousmane Sonko ak dem ci élection dara dara dara je le répète encore dara dara dara munu ko sauf xeexu askan wi xeexu askan wi la du cour et tribunaux du xeexu boroomu xam-xam xeexu xeexu sénégalais yi la du xeexu sëriñ du xeexu cours et xeexu xeexub yi la ñaar yii Ousmane ko bu génnee ci kaso bi sénégalais yooyu xeex bu demee ci euh, élection ak bu mu mën a doon sénégalais yee ko xeex dama ne boobu lay répété di ko rep dama ko wax ba sama ŋaami jeex dama ne benn juge du wax fi ba dugal Ousmane Sonko ci liste électorale yi ben juge du wax ba Ousmane Sonko dellu ci élection ben juge seul le peuple est souverain seul le peuple seul le peuple seul le peuple est souverain barka alxuraan kudul peuple bi billahi ñoo mëna buñu sétané le ñu Macky Sall bëgg yëpp day am buñu taxawé taxawee loolu balaa fee am dina jafe dañoo may gaa yi jàmm gaa yi foofu lañ ma naxee dañu tëgg wëndeel dañoo may gaa yi jàmm dëkk bi ak lu mu metti metti metti gis nga xeex boobu ñu doon xeex noonu ak lu mu ndaw ndaw ndaw ay xeex boobu akon bëri woon bëri sëriñ yi amuñu woon jàmm gaa yaa ngi doon wax coow li di riir économie bi di këdd di daanu coow li bi tar metti coow gaa yi nekk ci fitna di daw ci hôtel yi di làqatu non boobu sincèrement si vous 5 jours 6 jours gars kaay ñu mais si vous kenn pour génne Ousmane Sonko ci fait gars de ko. le veuille ou non gars il Ousmane c'est-à-dire que la solution de sortir Ousmane Sonko de la prison c'est ce gars donc ils ont montré que Ousmane Sonko toogal deux ans a deux ans il la fait, la ci fait Sénégal ko c'est-à-dire comme si léegi dagan na quoi Macky Sall tëj Ousmane Sonko mu a def deux ans mais gars il pare nañ ci il parle plus c'est-à-dire ça montre que dañ ne Macky Sall euh, tëjal Ousmane Sonko Ousmane Sonko yow croupirel en prison en attendant sincèrement <laughs> du leneen dañ ko waxté dédé, de sénégalais yi nénañ accepter accepté nañ Ousmane Sonko tok ci kasso bi parce que wane wuñ ben yoon jamono jii benn jéego buy wane ni dañoo yàq waa ji dafa war a génn ci kaso bi donc maanaam dañ ko won carrément ko toogal deux ans yi foofu moom toog fa amutul benn xeex walla benn jéego bu sénégalais du marche du rassemblement du loo xam ne ci jàmm lañ ko doxee du pacifique du xeex amul benn jéego bu sénégalais yi jamono jii jóg def pour Ousmane ko génn ci kaso bi amul benn jéego boole leen ci gisee benn jéego wax leen ma amul benn jéego bu peuple bi def jamono ji à part seetaan Ousmane mu war tëdd deux ans ci kaso bi benn jéego defuñu ko benn jéego dañu leen accepté loolu lu ñu war ta accepté te su plus que ñuy dem gars yi di leen accepté loolu ñu war ta accepté chaque jour décision bu am du méngoog dëgg gars yi di leen accepté loolu lu ñu war te accepté c'est catastrophique lépp lañ leen di accepté loo léegi daal maanaam fii injustice dafa dagan Sénégal dafa dagan juge hmm, saaba si fay ne delloo leen ko gars yi ne delloowuñ ko benn Sénégalais du génn ñu toog non dañ ko delloo waaye bu ko delloo non dañ ko delloo non non non c'est suspensif c'est répressif c'est décisif non dañ ko delloo kese Macky def lu muy def continuer ah nag gars yi de léegi ay picc waxu lañ moom garaawut wax rek la ñuy def <laughs> waaye eh, delloo ko ñu bàyyi ñu ñu avocat yi dawaat ñëwaat Ousmane Thion ñëw génn nañ ko delloo Sénégal yi toog nañ ko delloo waaw nañ ko delloo noonu nañ ko delloo non non ko delloo non ko delloo ma delloo boo ko nañ ko delloo c'est suspensif répressif décisif kese waa ji ne delloo ko te noonu la koy doxalee ba tëj mbir yi kese amatul génn amatul xeex donc dañoo daganal léegi injustice mun nga ko teg ku la neex gars yi nee nañ bu ñu génnee dañuy arrière élection yi <laughs> kon yéen daal liberté jàmbur arrière yi élection moo ko gën kon yéen mun ngeen seetaan ba nit ki tëj nit ki ngeen di xeex ba waa ji di am jotu ak tal naan day arrière ay donc daal léegi fu nekk nii mun ngaa teg ku la ku la neex mun ko ko teg lu la neex parce que gars yi nee nañ oh, bu ko arrière nangam ak nangam donc daal moom na def lu ko neex daal parce que da di bañ ñu arrière élection yi loolu ngeen di bañ ko donc moom mun na tëj ku ko neex jàpp ku ko neex fàtte ku ko neex mais amul problème mais nag Macky Sall du xeet googu du xeet bu nga naan xeexuma mu bàyyi la noonu day rëkk sama am xeexuma mu ñàpp sama am nga <laughs> xeexuma muy def lu la metti xeexuma muy def li nga bañ genre boobu la boo xeexul yaay dee xeexuma mu fekk la foofu di dóor xeexu la mu diri sa baay sa kanam yóbbu xeexu la mu xañ sa leader ay élection xeexu la mu tëgg wëndeel xeexu la mu sàcc xeexu la mu parce que yaa ko woon ni xeexoo yaa tu l'as balisé terrain woon nga ko ne xeexuma ma dara yow defal la neex xeexuma defal lu la neex xeexu <laughs> ah, ma yow sa waaye man de bu amoon boobu damay sant yàlla man de bu may xeex ak sama noonu mu ne ma defal lu la neex xeexuma waaye yow balaa ñoo balaa balaa ñoo yegg balaa ñoo yegg ci élection yi ma yóbbu ko laabi sina dina tal leneen hôpital laa koy yóbbu xeexuma defal la ne xeexuma dama koy escanté balaa ñoo yegg jour ji jour ji ku la fa bàyyi day fekk dalaa may jàmm dalaa may jàmm mais koo xeexuma mu lay dóor koo ne xeexuma mu lay gor koo xeexuma mu lay yàqal mais <laughs> mais balaa ngaa yegg foofu dina metti xeexuma

waruñu may Macky Sall waruñu may Macky Sall waruñu may Macky Sall mu am ay possibilité éliminer Ousmane Sonko bay organiser ay élection éliminer Ousmane Sonko bay organiser ay élection man xam na laa gëm gis man gëmuma ay dream gëmuma ay rêve on a tant de fois brisé mais rêves gëmuma loolu man gëm naa ni fii lu fi waay am da koo xeex man loolu sama gëm-gëm la lu fi waay am da koo xeex donc lu ñu bëgg a am dañ koy xeex rek buñ ko xeexut pour ñu am ko day jafe loolu laa gëm man kese léegi nag situation yi ku ne neex na danga caa da nga cee bokkut ñun Nous war a wane solidarité vis-à-vis de ki nga xam ni ay daj wane suñu solidarité ci situation bu Ousmane Sonko di dund dañoo war wane suñu solidarité ci ay avocat am lu ñuy dund wane suñu solidarité ci juge yi nga xam ni dañoo décider yoon wane suñu solidarité nag ñu génn dox ñaxtu won ni ñoom lu ñuy tamit metti nañ comme lu ma ko dit rien le fait de faire acte commenter ça montre que nous devons accepter li ñuy nous Ousmane Sonko parce que le peuple ne peut pas être là di mais où est le peuple mais man mënu ma comprendre ça. de man man ñu quoi ay fait des génn di dem cour suprême ak du dugg di dem DGE ñu koy delloo gars di des quoi. non ay dafa na DGE ay dafa mi ci mi ay bu nañ ay non mais non man na peuple gars def nañ leen ay vrai spectateur ay vrai yi ay 74. pop pop pop gars yi doon ils yi doon joué match yi lañ leen ay spectateur dañuy toog ci internet bi ay dafe jóg na ay dafe yow na ay at dafe foo nekkee yow na de ay dafe génnal dem ay dafe di yi mais ne ci lan lañ nekk ci foo lañ nekk ay dafe jóg na ay <laughs> de ay dafe ay eh, ñu bu max nañ ko bu max nañ ko non attention bu max na ay dafe ay eh, waay lii lan la waay waay bàyyi leen paa bi mu jàll ay dugg na dugg na génn na ah, ah yor lu mu ay dafe nañuy atte nañu yee

bëri ci ay Ayib Daffé dafa dugg génn gars bu muy dugg gaa dugg la jóg na yaawu na Ayib Daffé fu mu nekk moom jóg na ay laay laay laay lu mu sol garab bi rafet na de costume bi rafet na de ah taaru na Ayib Daffé ci buntu ba toog na ci garab ga mum te baaxul moom stratégie yi ñu jël nii nekk ay commentateur yor micro yi bàyyi match bi bàyyi terrain bi yor micro yi di wax rek <laughs> non ça va loolu moom xaw ma ku muy gagné mbir yi moom dafa compliqué léegi dafa compliqué affaire yi moom ni ñuy gën a demee affaire bi <laughs> affaire yi yéeme na de man de man de man de xaw ma ko ñaqul mais man ñaq naa man man moom xaw ma ko ñaqut <laughs> man ñaq naa. ku ñàkk xaw ma man man ñàkk na man nag gars yi xaw ma fu ñu man xaw lu ñu jàpp nag lu ñu jafandu man xaw ma ko ba léegi kenn waxuma nag man damay tiit rek jamono ji damay ñàkkutoo xaat damay tiit rek wallaahi mais da ngay tourné rek ndeysaan gis benn sénégalais boo xam ne la <laughs> mais grand dama tax non grand yow da ngay ñëw non grand dañ koy lijjanti non Sonko day dem nga <laughs> nga ne ko ah grand bul tiit Sonko day dem <laughs> ah foo ko teg non day dem day xëy na mystique la xaw man xaw ma man maintenant kenn ñu may wax yëpp Sonko day dem amul kenn ku ma tegal dara. man daal gis naa boo xam fu ma tiitee rek jàq jaaxle ma gis ay nit ñëw taxaw di ma gëm waaye <laughs> day dem ku ci xam nag na ma wax xëy na dañ leen a dee lu ma yëgut jàppale leen ma ngeen àtte ma man jamono dama sonn de dama ñàkkut a xeeb barke alxuraan li may séntu nii neexul. lu may gis nii neexut lu may gis nii xeeñut neex xaw ma nag ñoom fu ko teg man kenn waxaguma àtteeguma waaye daal ku yaakaar ni baajo Camara mii <laughs> stratégie nag am na ci xeex dégg naa gars yi na non gars yi xam nañ ni koo constitutionnel bu ñu fa demee dañ koy nangul Ousmane Sonko nañ ko nangam nangam nangam <laughs> bu dee baajo kamara sa papa ko fa teg wala sa yaay di nga comprendre bu dee baajo kamara bi fi nga xam ne Macky Sall bu mu ko tegee cour suprême conseil constitutionnel ba léegi jël xaalis bu bari di ko jox mu yor ñaari jabar mu jox mu mu dëkk ci cité Mbàkke yu fay bële amaat beneen jabar ji dëkk fële ñi mu yor ñaari jabaram yor ay doo ay doomu jiit la muy tux yàmbaa foofu muy jox lu ko neex yor yor oto yor chauffeur yor garde corps bi GIGN Macky Sall jox ko GIGN ñu yor fetal moom mu nekk ci kat ci ginnaaw chauffeur am bi nekk ci kanam am euh, benn élément GIGN bu ñu jox mu toog ci kan di ko garde bu dee kooku kooku moo toog naan waa Ousmane Sonko day dem <laughs> mais saa leen fàtte ni Sénégal cour suprême sax benn nit bu fi taxawoon bu ko conseil constitutionnel bëggoon wax droit sax dañ ko mujjee rey ngeen comprend lu leen de. xanaa da ngeen fàtte ni président conseil constitutionnel taxaw na fi bëgg a wax dëgg gaa yi rey ko dóor ko ay balu fetal dama yaakaar ni gaa yi dañ ko fàtte quoi man comme mënuma comprendre nan mun a toog ne da ngaa jox confiance Mamadou Badio Camara <laughs> man kooku kooku vraiment tu n'as rien compris de l'histoire président conseil constitutionnel non conseil constitutionnel taxaw na fi bëgg a àtte droit jamono Abdou Diouf ñu ko tëll balu fetal ray ko ci corniche ba dóor koy bal fetal Ben, mère bu ñu Jazz, jaas xaw ma lan lan Jazz ñëw taxaw tour résultat yu ko neex vous avez oublié l'histoire de maître Babacar Sey. vous avez oublié l'histoire de maître Babacar Sey. depuis euh, cette histoire là amul ben président conseil constitutionnel bu fi àtte deuk deuk bi bu muy tak ñi ray ñom ñom Mamadou Diop ci le président conseil constitutionnel taxaw ne Ablaye Wade day am na troisième candidature les avocats de Sonko nak dañuy def lu normal de ñoom dinañ déposer dinañ génn dinañ rayanté dinañ def lu leen di fayé dinañ def sen liggéey kon nak sénégalais histoire baa ngi nii ñu jamar lool histoire baa ngi nii ñu jàkkaar lool nous n'avons pas, la vraie histoire Nous fuir ko fuir responsabilité mais seul le peuple souverain peut sauver Ousmane Sonko je le dis et je le répète seul le peuple souverain seul le peuple souverain peut sauver Ousmane Sonko maître Seyi, moo bëggoon àtte dëgg ne Ablaye Wade gañe na ñu rey ko jaas boobu moo mujjee woon doxee résultat je me rappelle très bien benn maire la woon ne Abdou Diouf moo gañe comme lan jaas fàtte turam benn maire nii benn genre portugaaño la quoi mu lan jaas moo joxe woon waaw voilà président bi dafa démissionné woon mooy le juge Kéba Mbaye Andrésia Vaz merci Andrésia Vaz boobu Kéba mbay dafa démissionné Andrésia Vaz moo ko mujjee joxe ñu rey maître Babacar Seye parce que moo taxoon gis résultat ya Andrésia Vaz donc histoire bi pour ñu ko fekkewut walla ñu fàttalikul dama ne affaire bu tegoo ci loxo Badio Camara di nga gis leneen nit bu leen toog nag dina gëmloo ne Badio day def le contraire <laughs> xamu leen ni Badio euh, Macky Sall la ko fa bàyyi. déggante nag moom bu jàgg moom ñoom Cheikh Tidiane Coulibaly ñii ñëpp dañoo retraité woon ñii ñëpp dañoo retraité woon Macky Sall leen indi amul kenn ku fa nekk ku retraité wul madame Aminata Ly Ndiaye bërkaati démb la ko ci doogo du yokk ay ñoom awa jéyeeg ñooñu ngay gis ne kaati démb la leen yokk conseil constitutionnel bu ñu ko changé yàggul de bu ñu changé waatee ñoom Badio Camara fa nekkoon ak ñoom Cheikh Tidiane Coulibaly yow yu daf cee yokkaat daf cee dafa changé am ñu mu dindi am ñu mu dugal def équipe tibam Mamadou Badio Camara la Aminata Ly Ndiaye Mouhamadou Diawara Youssoufa Diaw Mbodj Awa Dieye Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye bi bërkaat démb la ko fa dugal ak ñoom Cheikh Tidiane Coulibaly les sept singes yooyu noonu moo tax équipe tëb tok di xaar équipe boobu tépp la teg amul kenn ko xamni yow peuple bi yaa ko choisir ñi lay wax ni 700 yépp yëpp Macky Sall moo choisir mom du loi du droit pour règlement mo choisir 700 jam changer changé équipe liste parce que djelna ay nit ñu xol xol xol ba xàmmee ni kii mun na ko trahir ki mun na ko nag ñu mu dindi lépp teg équipe tibam muy 700 jam ñu tok di xaar voilà donc ñun monde bu ñu dugal moo doy waar dañoo dugal ci ñu ñu dugg ci marathon judiciaire bo xam ni chat xaw ma kañ lay jeex lu ma leen waxoon ne l'arbre qui cache la forêt kan la woon Barthélemy Juda Diaz ne woon naa leen boo leen cour suprême wàccewaat l'affaire Barthélemy Juda Diaz dafa bëgg juger l'affaire Mame Mbaye Niang dafa bëgg a l'affaire Mame Mbaye Ousmane Sonko appel bi la bëggoon tëj waxoon naa ne ko fële passé ba may wax ci Barthélémy Dias gars yi seen seen stratégie laa xam te tamit je suis très très très informé nag je informé de boo xoolee li ma lay wax bu fekkee dara teggeeku na je suis l'un des rares gens yoo xam ni dañuy wax ñu def leen ay vaar je de des l'un des rares même ñi may xeexal nekk ci Macky Sall c'est très rare nga gis ñu jël ay vaar yi ma wax yu amul di ko teg doo ko gis <laughs> doo ko gis je suis l'un des rares lu leen jaaxal du vaar de mooy kii nan la def bay am information yi nan la def bay am information yi mais ñoom ay kii day fen kii wax dëgg doo leen gis mukk ñu ñëw teg maa waxoon lii lii amul ñu ñëw tegale ko ku ko mun defal man kay waxoon nga ko lay la ma ne Barthélémy Diaz c'est l'arbitre c'est juste dañuy leen di dilatoire la mais parce que mënuñu àtte l'affaire Mame Mbaye Ousmane Sonko te bàyyi fi dossier Barthélémy Diaz, parce que moo dit. moo jiitu loolu moo dit. ñu bugg leen tegal l'affaire Barthélémy Diaz après indi l'affaire Ousmane Sonko moo l'affaire Barthélémy Diaz gis ngeen ko dañ ko décider nañ l'affaire Ousmane Sonko c'est le 4 janvier l'affaire Barthélémy day ñëw rek nit ki gis nga nu et l'affaire Barthélemy ñaata at la def ñu fait. mais l'affaire Ousmane Sonko euh, sans nous jaar l'affaire Barthélemy Diaz l'affaire Barthélemy Diaz dilatoire <laughs> dilatoire la gars je escalier la def Je escalier boo ko Je escalier Je escalier la donc l'affaire Barthélemy Dias boobu gis nga ni ngeen ci doon waxee boobu l'affaire Ousmane Sonko moo doon ñëw ci ginnaaw mais ñoom préparé woon nañ ko te lépp ñi ngi ko réunion wax naa leen ko hôtel Rio Baobab foofu lañ ko réunion hôtel Rio Baobab lañ ko réunion lépp hôtel Rio Baobab lañ ko réunion fa lañ dem cour suprême toog waxtaan lépp décision yi pare nañ ko fa lañ toog def seen congre seen i toog nañ fa presque quatre jours di fa lekk di naan di tëdd di nalaw yóbbu fa seen i jabar yor seen ordinateur toog ko noonu toog ci euh, euh, couloir yi di naan seen café di dóor di kii waxtaan nañ kuul do waxtaan lépp lépp ku Barthélemy Dias ne pas du ci dara Macky Sall waxtaaneewul sax Barthélemy Dias ñaar la Macky di waxtaanee jamono jii mooy maître Moussa musaa kii xaw ma lu mu tudd maître Moussa kooku moom wax naa leen ni Macky Sall mere na ko benn xeetu mer boo xam ne def ne woon nañ ko tëj ba damm caabi ji avant bu bu mu nekkee ci problème yi sax Suisse la woote réunion Macky Sall la Suisse ba mu jaaree Suisse woote na réunion foofu ay nitam ñëpp di saaga di saaga boobu maître maître Moussa Diop boobu ñu ngi ko téye ñu ngi ko téye ci police ba Macky Sall Suisse boobu Suisse la ko fekk ci la saaga parce que nee na waa ji traître la ak lu mu ko defal nangam ak nangam te xoolee te pourtant bu leen fàtte de est que xam ngeen ni maître Moussa Diop c'est un français il a la nationalité française ci barreau française bi la bok ci française bi la de gars ñi ngi dox sax pour jubale leen ci jamono ji ci dox ci mais maître Moussa Diop ci barreau française bi la bokk nationalité française la nek avocat barreau français bi avocat la qui ci barreau français bi mais Macky Sall Suisse la réunion ci ci ne ko ba lu mu ma def métti parce que lu mu tudd turam ci ay affaire u ay or ak i jamaa ne Macky nag <laughs> ñaar la Macky Sall di waxtaanee Ousmane ko ak maître euh, euh, euh, kii Diop jeex na tàkk ñoom ñaar la waxul Barthélémy Dias du ree ñoom lijjantewu ko lijjant nekkul sax ci moom ñaar ñii ñoo nekk ay programme kenn ki moom dugal na ko ca kat ñoom ñaar ñëpp a ngi ci kaso bi sax déjà mais ñaar ñii la mere ñaar ñii la amal en mais nag jàpp leen ni maître Moussa Diop moom gaa yaa ngi dox diggante ba gaa yaa ngi jéem a dox diggante ba am na ñu fa dem gis ko ne ko pour mu baalu Macky Sall parce que Macky Sall affaire ba da ko metti trop sax pour mu baalu ko. tey gis ngeen benn journal sax bind na ko maître Moussa Diop demand euh, euh, le pardon a à Macky Sall gis ngeen journal bu ko def donc ñëw ñu ngi nekk di ko dox affaire boobu lu ko metti la lu maître Moussa Diop kii nii dafa dafa waxoon ne tëj leen ko ba lamm caabi bi bu mu defee Suisse le lendemain lañ ko tëj le lendemain ay retour de parquet yu bëri la woon Macky Sall woot ne nokk leen ko ci kaso ba damm caabi ci parce que turam bu mu tudd ci ay affaire or ak jamaa ki ay nangam ak exploitation ak nangam ak ay dealer lañ ay bandi lañ maintenant li may tëjee mooy l'affaire Fatou Ndeye Ndeye Fatou Bintou euh, gis ngeen vidéo bi n'est-ce pas malheureusement ndeysaan dem naa fa wër fekkuma wax dara ci <laughs> non mais sénégalais sénégalais wor sénégalais mo wor mais ça fait même pas longtemps fofu la fa te limu wax leen bu baax ñep ngeen ko j'espère Ndeye Fatou Bintou Cissé ndaw

mais c'est un c'est une patriote nit bu bëgg réewam la te ñële ay mafia waxoon naa leen histoire boobu noonu moom gis ngeen histoire bi lu yàgg la de musal naa leen fi def rëbb dëmm bay wax ci ñoom ay ñoom Thierno Ba Ndom yi yore armement yi photo yooyu ma fi génne woon te ñu jaar ci ginnaaw dem dem jëndi armement yeeg yooyu contrat boobu moom lañ sàccoon contrat am ba moom lañ sàccoon contrat am ba bu ma leen di wax ay waxu riseeg yooyu moom lañ sàccoon contrat am ba dem jaar ci suuf dem jëndi ay armement loolu moom la proposé woon ñoom Moussa Fall moom la proposé woon ñoom Thierno Ba Ndom moom la proposé woon ñu sàcc programme boobu noonu dem ñoom jënd armement loolu moom moo ko bindoon histoire boobu mos naa leen ko raconté si vous vous souvenez très bien depuis boobu ma jël ko fi émission ñu wax ci ma wax ci ci la ko gars yi commencé nag topp di ko topp jamono jooju di ñëw këram di ko xool di ko lijjanti ay chef gendarmerie national ñëw nañ ba këram di xool di lijjanti ñu def ko benn get appen jël benn nit bu mu xam ne ko da ngay nu mu ñëwee fii Thierno Ba Ndom teg ko benn get appen jamono jooju ñu ngi ko topp temps est passé dañoo saboté otoom pour vous dire vraie histoire avant boobu ñu commencé di ko indil ay giita ŋaas boobu la Clédor seen génn parce que secrétaire am la seen génn wax menacé ñu def ci live gars yi dellu ginnaaw mais bàyyiwuñ de ñu toppaat ñu toppaat ko ñu ñëw fekk otoom ñu def ko noonu ñuy defee gars yi ñu dévisser li nga xam ne moom mooy écrou yi pneu yi ñu dévisser ko comme lu ñuy def noonu nu ñu yàgg def gars yi dagg dévisser dund na loolu dañ ko dévisser photo yooyu yoroon naa ko fii mu envoyé ma foto yi ñu dévisser otoom buntu këram mu lu muy taale oto oto bi pëne bi di di def nii di di zigzag mu arrêté bu xoolee naka dañoo dévisser ay pëne oto di jéem a wut accident loolu lépp mu toog muñ ko parce que ñu ngi naan ko toogal xaar rek ñu Thierno Ba Ndom jox nit xaalis ne ko fexeel mu ñëw fii ñu waxtaan kooku noonu xam ko ku góor mbër la mun naa xool document yi fii ba wax turam fexe ba Kiné Cissé Fatou Kiné Cissé ñëw fa ba mu fa ñëwee Thierno Badom dafa génnoon bu mu ñëwee toog di xaar Thierno Badom dafa ñëw rek saag ko nday kajju ko yow looy def sama bureau te kajju ko agressé ko gaañ ko kajju ko tànk yi xoosu mu dóor ko foofu ba gémmiñ gi di di naaj ñu agressé ko foofu Thierno Bandom ci boppam moo ko dóor biroom jàpp ko dóor ndaw si ndaw si dem bind plainte yónnee ko central ba musuñu ko woo ba fan yi ci ginnaaw il y a de cela deux semaines mu génn ak portable am ay gros gaillard agressé ko nangu portable bi muy iPhone mu topp ci pour géolocaliser ko ci loxoy gouvernement bi la nekk portable am boobu te li ma leen wax deux semaines la def ñu agressé ko nangu portable ay ponkal ñoko agresser agressé nangu portable ba mais comme iPhone la mun na am géolocalisation mu top ci porter plainte ba suñ jonne yalla té jotul portable am bobu ñu yobbu ko muy connecté wu ci portable yaayam donc jot nañ dañu jot portable bobu deux semaines à partir de demb ñu wàccaat kërëm ci la def émission sénégal lan la doon wax ay projet la doon wax projet qu'est-ce armement projet ay partenaire la Russie Serbie etc. etc. yi autorité yi ko mais waxu fa donc comme nous fu nek ni mi ngi leen di déranger nañ ko ray nañ saboté otom agresser nañ ko nañ ko lu ndaw ngeen doon gis lu daj ci gouvernement sénégalais juste parce que dafa liggéey bi maîtriser émission si vous vous rappelez très bien pour nous ko nous gisu nous bintu cissé donc ñu agressé ko nous mu continuer nous ab jambar di nous mu indil émission malgré que sénégal biko tay la sax ci kii mooy ne Fatou Kiné Cissé waaw Silef vous vous souvenez très bien. yaakaar naa ni société suñu bokkee ngeen di manipulation foofu xaju fa euh, yaa ngi liggéey si domaine tel maa ngi liggéey si même domaine que yow. Mhm. bokk nañu euh, si base de données euh, comment dire client bi maanaam ministère de l' de la santé. Mhm.

à ma grande surprise quelque temps après ma koy woo téléphone nangatuma wuyu téléphone ma yaakaar ne dafa jàpp ñu may baloteloo entre moom colonel Cissé yeeg yooyu ma xëy suba dégg ni euh, sama partenaire woo ma ne ma ñoo ngi servi ñoom ñi nga waroon liggéeyandoo. ñi ma waroon liggéey des fonctionnaires de l'État. service mooy ça, sa partenaire yi nekk. waaw exactement parce que damay représenter la société euh, Yugo Import. Mm-hmm. Euh, bi nga xamante ne moo nekk servi. Mm-hmm des lettres de nomination euh, mandat on euh, wane ne j'ai l'exclusivité mhm. depuis que ma indi leen fii ñoo nekk ni yu koy import mi ngi nii. d'accord donc euh, ma ñu xëy suba nee ma ñoo ngi foofu. Mhm. te président moo leen yónni. président de la république de la république la ñu wax. ah. donc boole mun ngeen jël seen temps déglu émission bi. donc gangu Macky Sall bi bandi yooyu ñoo booloo sàcc projet dem Serbie ci ay partenaires am jaar ci suuf jënd fay armement photo wu. Donc, par ay partenaires gouvernement bi jaar nañ fi bande général donc nous xam nañ de ses partenaires parce que armement parce que projet tout léegi nag démb lañ ko dem jàpp ji dañoo njëkk a ñëw benn nit ne ko la police centrale bu ko yóbbu mu ne leen amu leen këyit buy wane ni da ngeen may war a jël yóbbu ma ndekete dañoo gaari seen oto yor ay këyit convocation yu amul bind bu am tampon mais amul tur donc ci la waa ji delloo dugg ci oto ba fekk fa yeneen trois gros gaillards ñu bind turam Fatou Kiné euh, Cissé ñëw moment boobu moom la man la doon waxal ci vidéo bi man la doon waxal ci la taalee live muy wax ak man comme la police yëg ni mi ngi wax live ci lañ dajj seen kër ñu dajj buntu bi pour dem récupérer ko le plus rapidement avant moo wax li xew moment boobu lañ dajj buntu kër gi dugg ci biir kër gi récupérer ko parce que moment boobu mi ngi wax ak man ci live bi donc ñu yóbbu ko depuis demb ba légui ñi ngi ko té ci commissariat central ci fenn ñu ne ñi ngi ko topé ne yo déglu len dé né nañ ñi ngi ko toppee diffusion euh, de secret défense ak tamit euh, division de euh, de secret défense Nous avons décidé de lan la fi wax de l'enlever. lan la fi wax secret défense lan la fi wax émission lan ngeen fi après ñu né dafa ay autorité wa légui ñaar diffuser des secrets après ñu ne yow dangaa fénal ay autorité mais ay ay secret kay boko diffuser bo boo demee ba jàpp nit ci ay secret yu diffuser moy deug la wax kon mëno wax ni waji dafa diffuser ay secret défense retourner bëgg wax ni mais day fénal ay nit ñaar yi mom mënul and soit nga né dafa diffuser ay secret défense nga wax ñu yan secret défense diffuser mais mëno né waji dafa diffuser ay secret dafa génn ay secret

mu domu doomu adama yi muy sosal mu bayyi koko déranger mu bugg la gis ngeen nguur gi day jeex léegi rek barke li ngeen di def ci salte li ngeen di tek doomu adama yi di ngeen ko layo ak peuple bi par A ou par B di ngeen ko layo de lu fi beure tul doomu adama yi ngeen japp di toroxal di tek di téeñal di takal, te tegulen ko fenn nguur gu jeex amul nguuru yalla kesse éternel mais comme il un état d'âme sax ma ci perte temps quoi peuple sénégalais bi waxal jarul sax ñi gens ay yeufeur lañ ay nitu bon lañ ñu amul benn gëm-gëm ay nit lañ en tout cas j'appelle le peuple sénégalais ñu taxaw j'appelle le peuple sénégalais Nous changer la donne j'appelle le peuple sénégalais nous sauver cette progéniture j'appelle le peuple sénégalais Nous sauver où j'appelle le peuple sénégalais à une rupture totale totale sauvez-vous lillahi wa Rasouli, Aduna jeex na mujum jamono lu sauvez-vous ngir yàlla dund Ajana touti aljana Touti rek Touti aljana seen de Ksanda sans daw sans dem dund leen tuuti aljana lu sauvez-vous leen lillahi wa Rasouli, dimbale leen pour ça sama gars yi PS PDS AFP AJPADS ay dëmm yoo xam ne buñ fa toogee ba catatatatatat mais ñi fu ñu toppee depuis mille neuf cent soixante PS PDS AJ ñu ñu dëkk nguur gi bu mu bu yàlla bu ñu tubaab yi bàyyee fii ba léegi ñaari parti ñooy diriger réew mi depuis mille neuf cent soixante ni ngi 2023 deux mille sama gars PS jël Macky Sall euh, euh tudd euh, Senghor Abdou Abdoujouf, ñu ab seen i ñoñ ñu pare jox Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade jox Macky Sall mais ñun depuis mille neuf cent soixante nga xam juddu guñu xaaju ñu juddu suñu jamonoy papa ba suñu jonn yàllay tey les mêmes têtes le même système ay dem nooxóor mais sama gars yi nag mais nañ dund tuuti jàmm nañ dund dara sax au moins balaa ñoo dee waaye ñun bëgg nañ leneen nag ko bëgg nañ dund leneen ngir yàlla lillaahi wa waaye gars yi nañ ñuy bàyyi nag nañ ñu bàyyi quoi 1960 ba léegi même système nañ ñu bàyyi lillaahi wa rasuuli ñun sonn nañ nañ ñu yërëm nañ ñu yërëm gaayen mais xanaa doo ma ne nit bu judd 1960 ba bu muy dee ngeen ne ay ñaari parte fi nekk di paacoo ko seddoo réew 1960 ba léegi ah ta ta ta waaye yàlla dakk waay yàlla na jeex waaye waay yàlla jeex ren waay waa ta yàlla jeex waay oh yàlla na yàlla yàlla dakkal lii waay li métti na. gars yi da leen bàyyil réew PS PDS PS PDS kese PS PDS ab mag Senghor jox Abdou Diouf ñu toog vingt ans vingt cinq ans ñëw jox Ablaye Wade Ablaye Wade toog douze ans jox fiisam Macky Sall toog douze ans mais ñun gaañ fan lañ jëm Macky Sall bëgg ñëw jox Amadou Ba mais ñun fu jëm Amadou Ba bu neewon PS mais ñun fan lañ jëm ñun lan lañ def yalla lan lañ def yalla ba 1960 ba léegi ay dem ñi seddo di joxe ki jël jox ki ki jox mais ñun fan lan lañ def pa pa pa pa pa non ay yalla li tak te jeex way wa ya ya ya ya ñun gay yi soxor nañ bon nañ waaye mais nañ ñi may jàmm waay waaye nañ ñu may jàmm waay waaye 60 ba léegi dafa yàgg waaye ñun juddooguñ buñ juddoo ba léegi waaye may la ñuy dund tuuti afia waay waaye may la ñuy dund renouveau waay mais may la dund lu bees tuuti ñu ñam xam leneen xam leneen ñam xam leneen mais ñi dañu sonal ay sugar daddy yu toog tenti seen bopp yi wéef ko toog rek toog Senghor lekk suñu papa yi Abdou Diouf lekk suñu yaay yi plus de vingt cinq ans ñu ñëw jox ab PDS PDS toogaat bëgg Idrissa Seck Ablaye Wade Macky Sall wax waxatuñ dara ñu bëgg a jëlaat mbir ya dem joxaat lu mu tuddati Karim Wade dem joxaat ko Amadou Ba mais non mais non mais non mais non mais non non mais non waay non mais lillahi wa rasuli waay waay non waay waay démissionné leen waay yéen xanaa yërëmu leen ñu mais yéen lan def yéen toppee ngeen ñu mbooro soixante ba léegi PS réew boo xam ni lëmb PS ñoo ko jiite 1960 ba suñu jonn yàlla tey PS PDS PS PDS PS bu PDS jëlee 25 jox PDS mu jël cinq mu joxaat PS 25 mu jël mais ñun nit mais ñaat mais yow mais ñaata ñoo fi dund ba dee PS PDS leen jiit mais